Tuubaa ci xarnu bi wolof gënul fi moomi naar gànnaar gënul mbay aar soldaari Jurbel doo fa jaar ba def jumaa ci xarnu bi màggat gënul ci xaar ndawit gënul kibaar njaccaar gënul gumba gu taar bu jox fu maam-maam xarnu bi bambay borom ku fa yakoon moo doon ahmadu li nii mooy gaamul xeej yekki seem moo yërmandey waa xarnu bi baatin la daa fab di ñu joor du mere nit ba di ko dóor moo dem jigéen ama góor defar na leen ci xarnu bi tarbi la yere goneem tarxiya mag ñeneen fa moom ñu tarbiya ba ñuy dee fii bañ mën a ànd ak arme bi dinaa la xamal borom bi daay moo di ay jikkoom bilaay lay defal borom jafeel gu am ci xarnu bi jafeel gi tee na maa nelaw maa ngi wadeelu na ngelaw dootuma dox ci xarnu bi leeram gi dal maa tex texaan sam xel dem ba poroxaan ma naan ba man ni coroxaan di buusu gaay xarnu bi Cheikh Bamba yaa di suñ imaam la nu teg fa suñ amaam yow lañ doy doo ba fa saam ramun nu mboolem xarnu bi sëriñ si woon dañoo ti xam ñii won nu ñee far ba xëram Cheikh Bamba moo safoon xorom sabaale mboolem xarnu bi ku leen saboon teg ci balaas jël ba wat seeni balaas kon tey wat seeni balaas Mbàkke doomu aadama xarnu bi xaw si mooy seen ilimaan moom sax a xam teg alxuraan addi si yoneen ba rañaan moo ko xamal waa xarnu bi moo am a lisaan laay moo xam seen jotaan moo xam li waa ci asamaaw jëm ci suufu xarnu bi moo am maxaarisul uroof lam yaara moñ koroof mooy waykatu gën di mbindeef maay waykatam ci xarnu bi mooy wax ñu seetu adnaan mi wacaqari samaan biram xeebi jëm ji naan tuubaa li xarnu bi tuubaa ñeen na kuy murid waylun ñeen la kuy marit yam na nu Bamba def murit nee leen amin yeen xarnu bi jox naa la faw sama xol saabu nga nee damay setal terug ma daa sama xol foo tan nu xarnu bi Bamba da ngay boromi may te nun nu def boromi moy moo tax nu la way ndaxte nga jeetal xarnu bi way nu ngir bëgg dërëm mbàkke dañuy sàkku ngërëm ca bis ba yàlla di yërëm xeer bi ne woon xarnu bi yow mi liggéey nag ba am ngërëm xayrul xadim wàllu ñëw sa bul yaqoom xarnu bi tabal ñu jannatul naim ñaan dafa ak sa yëpp doom bunti yaa yor seeni doom di jël dugal waa xarnu bi sëriñ waan tijjil na la nga way jox na la njën nii la doy waajula soobu daldi way yaa mën a jàll xarnu bi noppali jënnaat yi yiléyin yàlla gërëm na laaj lemiin yeneen gërëm na laaj ñeneen ak xulafaawu xarnu bi ak mursaliin ak lewliya ak taalihiin ak lenbiya jinne yeeg malaaka yi gërëm nanu waa xarnu bi yoral sabong teneen fanaan diggante kaw saraat yi naan noppi tale ki nag te naan jaajëf teral xarnu bi alhamdulilah na ngeen leen a rabal alamin a di bàyyi kii di keneen mën a Moustapha xarnu bi yow mi liggéeyal Moustapha bul fàtte am di Moustapha ak doomi bàyyi Moustapha ñoo amee koo ci xarnu bi mën na xalifatul xadim des na place mat na doom te am na a xam ami koom mën naa Moustapha xarnu bi noppee ko rek tàllam day joor la moomi saalum ak kajoor ku laaj mu jox la lay semuur te mos la gantu xarnu bi aminata yaa doon njool aminata suubaade silmaɗiinat yeeweemi diwa karno mbi yaa neex a way te a bi amoo ci maas li tawee fii weesu faas yow lañ jébbal xarnu bi raayu weneel wa yaa ko yor yaa tekki tuur bi daw bashar ni naaru góor ak fa supar rawantewul ci xarnu bi boo dem ci xaar wan kibaar yaa tax ñu tàbb ci saxaar ba wàcc tuuba ngeen gi gaar noppal nga gaay xarnu bi robinet yaa ngi walangaan ñuy naa kaw saraag gi naan dootuñ tappaatu yi saan yaa def defal nga xarnu bii jumaa ji yaa ko taxawal yaa deemu naag say naw yaral naalam yan nanga ko matal amin war nga xarnu bii yow la Souleymane xamaloon carrière ba ba jeefa desoon jumaa bayti tabaxoon moom ngay defal naa xarnu bii Daawuda Bamba misaal baytul muqaddas la naal wujji boromam ba ko maal taaw ba defal ko xarnu bii ndombay ngeen el yoon ca maam lay sotti koo ci ak ndaam boole nga koo ngeen yi daam rangoo amul ci xarnu bi muridi jox na lay idaay tubaab bi jox na lay midaay sultaan nga boole ko wilaaya yaa mën a tàggal xarnu bi yàlla na am a nii mébét ci ñun ñoom ni ñuy mébét ci moom te am seen diggante morom allahu shafatul azim ku may ngënee deesu la yéem fadlu mooy fadlu le miin turam wi doy na xarnu bi mooy doomu shamsul wal xamar mbàkkeen musoo bi dun ko jar moom namp yaari weeni ngor mooy bamba tey ci xarnu bi si diiti baayam la yoraat leer jotaan ga lay rayaat ndey jaari xayra muhsinaat moo amee boo ci xarnu bi mooy noobulum islam ci ñun mboolem shérif yi moo ci gën donay wasin wal azam mooy xaadimam ci boo wax la def ci jikkoom yoo xam ne tuut na bii meloom nuru na baay bi mat na doom ba mën a kersa xarnu bi dem na ba makkam jullikaay aj na siyaare ngeen bi baay tey niwut alal bi jaay nawleem amul ci xarnu bi taali fi bàyyi may wayam moo doonu du ci xam-xamam moo naan ci géeju ikamam man naa musal waa xarnu bi yàlla na am li muy mébét ci ñun ñu am li ñuy mébét ci moom te am sa diggéen ci mboolem xarnu bi nañ tëgg Ahmadou Lamine moom la ñu may siral maxsoon xar baax la dane gum baay baa ko dem ci xarnu bi baatin ba jaaxal na Kajoor soo gisee mu ngi sama daay baatin ba jaaxal na Kajoor moo tax ñu for ko dem ca biir soo ko gisee mu ngay bëngeer ne kuy lu mat ci xarnu bi faj aajo moo ci gën a lu wax boroomam mu ne waaw di fal di folli ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi day way te jànguloon arab te man na xaadu ci suuf moo man arab te jommal na boolem xarnu bi sañ-sañ ba la ci moom jagle bu weesu nag juddoom mbër ma ko suuru daa di luum melam xajul ci xarnu bi rijaal yi xam nañ dara jaam su ne jalañ ñuy safi jaam nërëm nërëm di safi baam raamal koor na xarnu bi yam nañ ko may booti le miin tegal ko mboolem ay noon kuy dégg ñaan ne leen amiin ndax yàlla naatal xarnu bi allahu moo di jenn waay moo jàpp doom def ko ne baay bañ bépp benn taxawaay ab doo di baa moom xarnu bi net maa ngi teeru leen Bachir gone yi Bachir ku teeru naan lekk ba suur du xiif ci xarnu bi moo am jalaal te am jamaal te xar kanam bi leer jamaal te bari xam-xama alal buri kafi ci la buur ba fa def ko jigéen ña tàggoog sa doom ma ngaat Bachirum xarnu bi ca ndawam la dal di raw fooree daa firee ka raw te mos la jaar ci yëfi ndaw mos la faale xarnu bi soobu ku ko rawoon nee la wif ñu xalam moo ma daf sakkaa ñi teel xama wi ilmu la jagoo mbirum inaaye la lëngoo nuurul wilaaye la sagoo dendam amul ci xarnu bi durusu téere alxuraan baabu julee ka jàng ñaan yooyu la baaxoo te ñaan ma yëpp ci xarnu bi yàlla ci sax nag ba dégg ma ba tolle ma ahmadu maam ba doon moo di yoon ci daam ndax yàlla naatal xarnu bi allahu di jenn waay ñoo jàpp doom def ko ne baay bañ bokk benn taxawaay Abdou di Bamba xarnu bi boo ko gisee muy sama ndaay Cheikh Bamba ñoo ngi roog jataay miroo yaram miroo sewaay miroo deret ci xarnu bi miroo jëmm ak mel ak doxiin miroo defiin biroo waxiim mu ne ñëwaat ne du geneen Bamba ñëwaat ci xarnu bi moo di walax jaanu jinaan bu leen ko xool ba ci gañaan gañaan du tee ba jëna daal bàyyi ma leeral xarnu bi moo doon tab yoon ci moom moo doon ñambaar gi ci moom seen bàyyi seen lii jikkoom séddeku lii ci xarnu bi baatin baraw na saahiram day gaaw a soppi ay biram bir ya ca baayam ay biram moo yor joloore xarnu bi yal nañ ko dolli ay murit te yal na raw pexe mëri te yal na mujj di fëri ba toll ne te ñaan ci yàlla muy chamat mu may Serigne Abdou Chamat te may Serigne Abdou Lahat xar baax yu doy waa xarnu bi ci boobu xuloo fadil Serigne bi mag bi tudd yéen yàlla bu seen i barke neen ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem lu dooni saalihin ci sowu jant ak feneen yàlla na saali wu dusum jant bu tiim waa xarnu bi dundu soxoy bu gaat alal ju bari jaajam darajaal yàlla ko Cheikh Bamba misaal ci sunu sooyum xarnu bi di yokk Abdoul Khadir fi shaahirul baatini bi jaahi bàyyi taahiri moom sant ji lim xarnu bii di am na Ibrahima moom di dem xarit sa suñ borom ba jot ci boo ci turandoo. wasalallahu taala. aouzu billahi min ashaytani rajim. bismillahi rahmani rahim. wasalallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. mboolem murid yi déglu leen ma yee leen. ci biir Cheikh Anta bu leen nelaw yéen mboolem mu di déglu leen ma yee leen ci biir Cheikh Anta bu leen nelaw yéen li may nelaw nelaw du tee ma yeete li may gëlëm gëlëm du tee ma woote amaana kuy nelaw nelaw lu ngi reer waaye bu dee fi yee fi dootul yandoor bu leen di fàtte yàlla ak dogal ya ak àtte ya sañ-sañ ba mugal ya kattan ko na coow beram ci lay def loo gis mu xew mi neef mënul sañu lëf dogal bu am day la ko loo ki xew-xew ngir kuñ gisul war naa la koo ki sew-sew di yàlla kat xarit ba leen musibaal ngir dara jaar ko maata muy ko muy baal di yàlla jox xarit ba ci maqaama te munu koo jëf nag lañ koy xawmaal jabala laa wóolu ko jox la mbir yee ne ko ñeena mbaa aw ca tànki bëri yow darab la laa naxum saabiriin ah si banaa suy kaasibiin moom lañ waxoon yeneen yaag labdaar ya ak xutb yaag walli yaag lawtaan ya waxaala xutb law ya makkiyu radiyallahu anhu al makkiyu wa fi hadiisiin abdallahu hubaydoo binu ko tottileewu fay subaabe tabat sabaahu ahlul balaa laysa lan misaan wa laysa yunsuru lahum diiwaan déglu ma wax la la daloon yamen ya ak saaba yaag walli yaag xajjam ya soo xalamee mbir yi amoon sa baawam mbirum sëriñ gaawaan woo ci baatin seetal borom muñ ko naa yoo ba sax yaa ko dàq coogi wan nañ koo ba te dee ko koy sant ba wax alandu moo tax ba yàlla naa ko ni mal abdu seetal ma daaneel ma daanu ci teen ñu boole ko gaynde yeew ko ci teen gaynde yemal yaram ma muy ree ñu far ko jàngal saaram yor yaare yéen yaa na tuubi dootu lam ci Sénégal noonu yaa ko jàpp xel yaari gaal muy bëgg a wax yàlla yabal jibrilu ne ko su neex dootu doon mar soxol soo xale mee maam sur ibrahima comme laatam xalilan a alima bañam yi rey nañ <coughs> génnee nañ ko muy bay feeral ba yàlla rendiloo ko ismaila ñu dellu taala ko banam na mu def ko ca biir yàlla seeral solom sa seetal ma yonent biñ naan yankoob at di palamtu nee ba da daa si mooy rangooñ ginnaaw ba yuusuf san kom jekki saxoo ayaasam soo xale yuusuf ak bokkam tuumaam ya doo ko ragal kutub ilaahi naasi doo yox yoxeeti ngir pexem xanaasi na toog julit da yokki makaama baamu si ci ñaaw tee bi sab xiyaam na toodi kerkiraani awliyaahi ku weddi laaj ko xayrul anbiyaayi bas nañ koo génnee mu dem ba na jaraan ñu di ko sànni lëpp danaa day jabaraan moom yaa génnee Makka ndax bañ diine bi isni rabbi la dem Madina fanaan na cim xunti fanaan ciy doj ànd ak Ababacar lu nekk muy daj fan nañ ko tabal jox nañ ko tooke teewu koy doy kiimaan bisub keroog li yàlla wàcce saaru naasi ak fallaxin mocce ko xeeru naasi bisub keroog li yàlla daani kéefar yëkkati lislaam loolu doy na tiitar dunya xanaatu moo di sinul muminin wa jannatul kaafiru ñi ñaar duñu ma ne dogal bu am yàllaa ko def te xam naa bi ay diw yiw soo gërëmul gërëm naa seetal ma saaba ya gannaaw yeneen ba waree ku ko wax ku xamul baatin ba am na ci biir yoo ne lamin du ko laal am na ci biir yoo xam ne def na ko misaal foo jëbalin saaki ama tajalee waaye dinaa leen ci mosal fii dara ndax ku xamul yaaram mu doli baar ku xam arab na seeti nuuru laxsaar ginnaaw wa sadiq dañ reñe Ousmane dellu jàmm faaroo rene ko tuumaan nañ ko jàpp Marwaan mosoo ki biri déglu leen yéen gaawaan dogoon gaw nañu kër arbaina yawman wa tisatan bii doy nekk ci warma kenn mas la gis nañ rey Abdullahi dañ koo solop dog ba ba wër na laayi yow mal jamal tëj nañ bëtum càmmooy ba bis ba ca des ñu tëj bëtum ndeyjoor ba Mouhamadou Ababacar Sadiq ren ko jar na waaju nekk yuuxu ren nañ ko wat ko sànni ci seen daare daxan jabal boole ko الثمار عن العذرات والجبات أبو الحسين والحسن يا كاريا من أمريكا تشري في كوفر في ودي الله gaa yi dog ko foofa fa mu jullee fajar la xew nu mal jam ko daal di koy jam seetal Useynu yow ma xaasoora lañ ko rey ci riibi Karbala noonu yaa ngat bopp bi gannaaw ba deena lamin wanaan sax la mu lesiina seetal Asan noonee dañ koo tooke mu daal di faatu soxna saaka ñoo tooke Saadix benn tooke Baaxir ñoo tooke Seydi Abidiine Taahir satub Rasuulullaahi misaal Kaasim yi gënee su am ngor doomi Aasim daan nañu néeg ba ca kawam ca tëj nañ koy at baatu mel ne ak raxaat Yaquub doom waa jim naa Daawud foo gaaree rab natu atal mooy waada fukki at ak lam ci bënn aw buur lay reere te mus la Anas waaye imaamu Maliki doomu ma xale ngeen mii tax ñuy saaliki koy at ci kasoor la faatoo mbër mu ko julee wut foo faatu xanaa xamoo Mansuur Sayfu diini moom la ñu génnee mu dem ba siini ma kañ dàq ci réew yi mu jóge misray daw ba Iskandariy ñu def ko jàpp tëj ko foofu te woo waxtu moo defoon xalifa dem xulafaaw yi gëmoon rasul ñoom lañ def nii kenn war ta wóolu soo xalamee sa saari sahraani kalaame nañ leen na tuleen saaraani soo xalamee waram yéen ci doo gis ku daj lam dajoon ca ngër ya an ban marawoon ca ngër ya yeneen jéng lañ defoon ca yeel daa nañ ko caw téeméer yeeg suba ngoon te mus la weddi yàlla mus la mooy maa xiyaami mu diini sawni barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa oh. jërëjëf jërëjëf sëñ bi wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman